jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb bàkk ba jib na générique bi départ na wasaare làmb tàmbali na ak jàngat làmb ma ànd ceeg sama papa sama xarit ki nga xamante ni euh, lu mu wax ci làmb askan bi yëpp nangu ni li mu wax lool la noonu la làmb ji demee ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér euh, père Birahim Ndiaye ñu koy nuyu bu baax a baax a baax père maa ngi lay nuyu. waaw jërëjëf waaye auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi Hmm. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbooloo téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi safoo seen bi tudd wasaare lamb hmm. di commencé ci kilifa ba ci yéen ñi nga xam ne yéen ñëpp yor yéen a bokk ñuy liggéey ci sud maa ngi nuyu ñëpp hmm. di jël nuyoo bi di ko teg ci Basir mu tasaareel ma ko ci yéen ñëpp ji li dina ci yow di sant yàlla bu baax bi ñu ñëwee tey taxawaat ci waxtaan lu jëm ci làmb Eh, di gërëm ñëpp di sant caméraman yi nga xam ne ñooy wasaare lépp. Mm-hmm. maa ngi gërëm ñëpp daal. Mm-hmm. kon nag bisimilah maa ngi kontaanati daal. Mm-hmm. jërëjëf. jërëjëf mbokk yi kon tey dañ leen di indil komba bi nga xamante ni bokkoon na ci combat yi gënoon neex. doon ñaari komba xale yoo xamante ni ku ci nekk dafa waroon bëree daan dem cour de grand kenn ki nekk euh, doomu Pikine kenn ki nekk doomu Géejawaay mu nekk ñaari mbër yoo xamante ni mbëru gox lañ. parce que ku tudd Sa Thiès magam Balla Gaye mm. ku tudd Sa Thiès baayam Double Less ku tudd Sa xam ne jàmbaar la mm. euh, bërekat la mm. am na fit te mën na bis mais kenn du xale bi nga xamante ni mooy doomu déggol bi Hmm. moom mi nga xamante ni làmb da ko da ko da ko donn mu nekk ci deretam hmm. euh, mu baayam doon mbër hmm. tekki ngemb li jox ko maanaam mën nañ ne ñaari doomi mbër keroog ñoo doon laale ku ci nekk am koo xamante ni indi na la euh, yokk la li nga xamante ni mooy xel euh, ba combat bi gis ngeen fi mu mujjee kii di Boy Niang daan Sa Thiès mais loolu lépp mbokk yi dañ ko bëgg a indi analyser leen ko peer waxtaanal leen ci ñu xool booy Niang nan la def ba daan Sa Thiès Sa Thiès ban erreur la def ba ki nga xamante ni mooy Boy Niang daan ko su ko defee Père ñëw ci combat bi per ñu dem ci télé bi. waaw jërëjëf bala ñu ñëw ci télé bi. Hmm. dama bëgg ñu waxtaan ci tuuti bala ñuy duggandoo ci télé bi mooy euh, Boy Niang moo ko Sa Thiès ñaari xale yoo xam ne ñoo démarré ndoo comme ni nga ko waxee. Hmm. ñoo bokk carrière ñoo démarré hmm. mais xam nga ñaari élèves saa yu ñu déparé ndoo am na koo xam ne moo gën a xarañ kenn ki ci jàng mi ci lépp. waaw mais kii mën na ko doole kii dax ko bëri. wala hmm. boog kii am loo xam ne kii amu ko. Hmm. ñooñu nag ñaar ba ba Sa Thiès am na loo xam ne boo Niang amu ko. Hmm. waaye boo Niang it am na loo xam ne Sa Thiès amu ko. dëgg la kon yow fekk suñ dañu war a daje ma am loo amul yow nga am loo amul. addina dox ba ñu dem ñun ñaar ñu tëgg ci table dañ ne ñun ñaar ñi kat ku ci daan. yaa war dem war ngaa dem coup de grand parce que ñoom ñëpp coup de grand fa lañ jëm. bu leen yàlla mayee ndox yàlla yàlla musal leen ci ndox musal leen ci lépp. ñoom ñëpp coup de grand lañ jëm. Hmm. parce que ñooy remplacer ñii fi nekk tey ñii ñoo leen di remplacer. muy benn ñaareel ba su làmb demee ba boole leen su may dem nag dinaa toog nag jàng adversaire bi. Hmm. dama yaakaar ne nag li ma gis ci sama gis-gis ni ma seetaane làmb ji euh, bo Sa Thiès bëri bi tëju na ci moom muy benn hmm. jàngul ba pare moom it jàngul tamit euh, kii euh, Boy Niang. Boy Niang waaw parce que xale bu mel ni Boy Niang ak ni mu duyee ci bëri. nga ñëw jànguloo ko ñëw rek bëgg ko humilier dóor ko daan ko dem si yoon te ngeen di fëlandoo du doo dem. Sa Thiès tëjoo ci moom. bëri taxawaay ba. taxawaay droite xam nga droite ak gauche toujours ma wax la ko dama koy répété toujours di ko répété. parce que hmm. kii teg pied gauche ak kii pied droite soo maanaam toujours droite bi mooy gën a jekku gauche bi. Hmm. parce que li muy bëri ci ay gauche moom ëpp li muy ci ay droite. Hmm. te droitier bi li muy bëri li muy ci ay bariwul. mais gauche lay gën di bareel moo tax ñiy teg droite toujours gauche moo leen di gën a jubóo saa yu dajeeg mbër muy teg gauche rek avantage bu rëy la ci ñoom. Mm-hmm. kon man su ma amee avantage boobu naa ne ah waa ji kat nii lay taxawee waaye nii lay xeexee dinaa ko jàng jàng jàng gëñ a bañ a gëñam téere yeeg saafara yeeg sotti ko ba fàttee jàng waa ji. Mm-hmm. waa ji jàng waa ji daf ci am solo. ba mm-hmm. kii jëli. da ngay jàng adversaire ba boo ñëwee da koy tari. dëgg la waaye boo ko jàngul boo ñëwee bëri bi di tëju ci yow. Hmm. loolu la moon Sa Thiès bu boo gisee mooy favori bi jamono yooyu moo ëpp gabari moo gën a taxaw ci dooleeg yooyu quoi hmm. mais ca bëri ba nag gisee bi ñu egsee ci bëri bi dafa réer. Hmm. wala nañ dem nga xool wala. xeex ñu dem bi diggante ah. Sa Thiès ak Boy Niang. ay seen taxawaay. Hmm. arbitre baa ngi ñëw di leen dàkkaaf ku nekk li la yoon may ak li la yoon tere. Hmm. xam nga loolu ñuy nañ hmm. ne arbitre saa yu taxawee ñaari di leen di boole leen di loolu moom daanaka jarul sax ñu ci xam naa mu ngi leen di dàkkaafu daal kenn ku leen li nga war a def. mais boo xoolee ñaari gabar yi ñaari gabar yi nga xam ne ñii daanaka tollowuñu doole bu doon catégorie poids moo leen di boole rek poids kii du bëri poids kii. waaye nag ci bëri ñun lu nekk da ciy feeñ yedd na leen ñu dem waaw. tifle nañu. kenn ku ne yaa ngi sax sa protestant gis nga ki sol na protestant ku ne protestant toj na nenam. léegi nag léewtoo gis nga fii nag la la fi wax leen na waaw fii li Sa Thiès warul njëkk a def. may temps bëri bi. waru woon waaw waru woon rek ne dama koy jeexal ci une minute deux minutes. Mhm. damay may temps bëri bi ne teg léewtoo ba xam seet. ba xam saa kii. Euh, booy ñaan lan la indi. Mhm. parce que soit kii day ñëw jeexal si bëri bi wala day ñëw xeex si wala day wut euh, euh, maanaam badar lay indi wala day bëri si. Mhm. technique la indi wala xeex la indi loolu waroon nga ko xool xoolu loolu nag waaw moo dafa ñëw rek fermé attaqué. Mhm. mu daal di arrière xam nga yëpp ay tegtalu sëriñ la. waaw léegi nag fermé na fermé na attaqué mais gis nga fermé attaqué bi fii. gis fii dafa waroon ne tekk rek xool gis nga xob bi mu xob baaxul. Ah, Euh, waaw fii dafa mel ni Boy ñaan Sa da koo bëgg a jàpp mu mel ni ku ko ragal te ragalu ko parce que boo xoolee bi Sa Thiès di di ko xob yooyu Boy Niang mu ngi taxaw rek concentré wu. waaw parce que Boy Niang li war na ubbi bunt bi de kii dafa dafa góor rek dafa xob rek muy ñëwul. Mm-hmm. parce que gis nga ni mu aje gardu euh, droite am bii. Mm-hmm. baax na waaye gauche bi gis nga dafa wàcc baaxul dafa koo doon aj ci kaw. Mm-hmm. ba pare jam gauche rek ne teg day miime rek bàyyi. coup bi nag day miime rek bàyyi loolu moo doon yoon. waaye xool da koo jëm ba pare wàcce ko. léegi su ko defee xoola droite booy ñaa bi maanaam droite booy ñaa bi gis nga toujours fii yëpp day libre xoola ci kaw ni mu libre waaw gis nga ko ci kaw lépp dafa libre hmm. léegi kii droite bi mën naa dem day dem te day dal hmm. parce que moom nii booy ñaa aje gàddam noonu la Sa Thiès mii waroon aje gàddam ñu hmm. dem ayca waaw gis nga man mu ngi cokkaas gauche bi gauche bi da koy léewtoo ne mais gauche bi waru ko téye lu bari gis nga xoola taxawal waaw lancer mu dem bàyyi mu dem voilà téel voilà xoolal yow yaa ngi jëm gauche xoolal gauche bi fi mu ne. mais xool droit bi xoolal. xoolal gos bi fi mu ne xool droit bi fi mu ne. waaw du yoon. droit bi ñëw ñi seetaan ñëpp te mën a xeex xam nañu lii yoon. Hmm. parce que boo jamee gauche boo jamee gauche droite bi dafa war a nëpp sa mâchoire. Hmm. mais Sa li ñu jaaxal père. waaw euh, gis nga ko ni mu taxawee nii. mais droite bi mooy dóor gauche bi dóorul. voilà parce que xam nga xam nga lu ko waral. Hmm. léegi la plupart koo gis si mbër. muy jiital des dafa am ñoo xam ne tànk bii la ñuy jiital. waaw ci la ñuy mën a xeexee nu ñu cee bëre. dafa bari ci mbër. Hmm. mbëree wax ak yow nag. waaw leer na naa ñu. dégg nga dama ne ñu bari dañ jiital tànk bi mën cee xeex mais duñ ci mën a bëree. Uh-huh. boo ko jàppee rek ñu xool fi ñuy tëdd. dëgg la waaye am na ñoo xam ne ñu dañ jiital tànk bi ba pare mën cee xeex. Hmm. bariwul nag. Hmm. maanaam nga xam ne da ngay jiital sa gauche ba pare am arrêt de gauche bu baax. ba pare bu ñu la bëttee jàpp sa tànk bi nga bëre nga mën cee bëre. loolu bariwul. mais ñu ci bari dañuy mën a jiiteel tànk bi mën cee xeex mais duñ ci mën a bëri moo tax bu ñu ko jàppee rek dañuy xool fi ñu tëdd ñu tëdd ñu naan jël bi ko dafa gaaw xool ko song rek mu tëdd hmm. fekk tànk ko xeex da ko mënta bëree hmm. soo ko mënta bëree kay bu ñu ko jàppee da ngay xool fi ngay tëdd hmm. loolu tax mais xoolal moo ko pour nga bi bu demee xoolal day miime gauche bi rek waaye kii mooy ñëw droite bi mooy ñëw waaw léegi nag Sa Thiès li mu waroon jàng ci bëre mooy jiital droitam bii di xeexe bii bu fekkee du gauche droite bii pied droit bii la mën a bëree. Hmm. bu bëggee carrière am sori. dégg mën a xeex day jàng jiital pied droit bii di xeexe droite bi ak di complété gauche bële. Hmm. waaye bu fekkee xeex rek a tax mu bëgg jiital jiital bii te mënu koo bëree am na foo xam ne buñ ko ko faagee xool fi mu tëdd rek a ci des. Hmm. am na foo xam ne boo mënta bëree. ay yotam jiir bu ñu la faagee xool fi nga tëdd rek a des. Ah, waaw mooy ah, waaw parce que ñu dem. wala gis nga wala ah. toujours mu ngay laawul day miime gauche bi waaye bi mooy dem. mais droite bi munu ko munu koo dóor Sa Thiès munu koo dóor kii. Boy Niang munu ko dóor Boy Niang. lu tax parce que dafa sori. dafa sori. Boy Niang daf ko sori. waaw daf ko sori parce que pour mu dóor pour mu dóor pour mu dóor dafa waroon jëm bi ak un peu avancé. Hmm. bi mooy wàññi distance bi ba mën koo jot. Hmm. mais un un fekkee dafa nekk fii yootu ko ne du ko jot su ko nee laasé kay ñaar tànk boo jiitalee bi kay loxo bii gën a jege. bii dafa sori. waaw. léegi su ma nee nii defaat nii hmm. léegi dootuma la jot doo fekk waa ji moo tax saa yu ko yóotoo du ko dal parce que fi fi ko fi booy ñaar nekk ak mu yóot ko dafa sori ci moom hmm. mais pour mu ko jot nag stratégie la doon dagg taxawaay bi un pas hmm. jam coup maanaam day ànd ak un pas avancé waa ji déplacé wu rek mu ñëw droit bu sigee mu daw sango loolu moo doon bëri bi mais deful loolu moo tax day jam gauche bi maanaam day miime gauche bi mais du ko dóor droite bi lay laaw mais droite bi du dal parce que dafa sori fi mu jógee moo sori. Hmm. ñu dem ayca ñu dem. gis nga voilà léegi nag mu ngay xeex xeex aveugle. Hmm. maanaam xeex gu nga xam ne jàpp dóor jàpp dóor booy ñaam moom toujours wutul xeex ci bëre bi. waaw ah, moom fu mu jàpp rek lay wut. non moom wutul bëre xam na ne ba ba gis nga gis nga ko. premier jàpp bi baax na. gis nga jàpp bi nii léegi hmm. fii Sa Thiès di ko doon rëccale loxom bii day éliminer loxo bii. loxo léegi loxom bii droitam bii dafa doon dindi loxo bii comprendre nga léegi ñaari loxo xam nga la jàppe pour jàpp tànk bi hmm. mais loxoom bii la war na bàyyi jàpp bii dindi bii daal di crochet mbagg ma leen ak main gauche la dindi loxo bi hmm. buy mboot mboot buy roof ca xabal ca xabal maanaam bu koy maanaam man ne ko roof ca xooj boobu roof ko ca xabal daw yëg ko hmm. ca xabalu wet mën na ko ah. def wala boog mu tëgg ko mbootu jolol lépp ba Thiès mën na ko am foofu waaye day fekk na booba nag mu bàyyi xeex bi nag nga xam ne léegi fii comme dañ doon xeex ba jàppante nañu kay fii ne dafa war a bëri waratul a xeex dafa waratul a bëri. fii moom xeex amu fi yoon. amul yoon ak rocc ku di xeex sa dootu yoon. fexe naa ba jàpp ko daal bu fekkee mën na maa bëri damay fexe ba continuer moo tax saa gis nga booy bi Thiès tànk kii nu mu tëddee saa kii. booy ñaa gis nga moom dafa sëgg bi mu sëggee jàpp ko gis nga loxo bii dafa waroon a jël gauche bii droite bi kii droite saa Thiès bii. Mhm. moo waroon dindi gauche bii. Mhm. ñu dem ñu dem mu dem gis nga gis nga voilà xoolal da koy takk parce que bi mu laalee ci suuf. Mm-hmm. bi mu laalee ci suuf waa ji di jëfandikoo mu dafa ko bàyyi takk ci kaw. Mm-hmm. ñu dem gis nga takk bi ci kaw gis nga. bi mu ko takkee rek xam nga côté bi comme jubu ko gis nga ni mu ko wiitee fii nag bi ñu fekk see ñoom ñaar yëpp xam nga léegi dem na. Mm-hmm. pour kii moo gën position fan parce que waa jaa ngi ci biir. Sa Thiès mu ngi ci biir. te booy ñaar ah, te ñaar loxo mu ngi ci biir xamu nu war a def. jiital tànk bi mën na rek ci xëy ci. fi ne wartu la bëri fexe rëcc rek moo doon yoon ci moom. waaw dafa fexe rek parce que bëre day toll foo xam ne bi boo fa tolloo nga nekk situation danger. Hmm. bul bëre. looy def rëcc. nooy def ba rëcc. ah rëcc bi fi mu ne nii. day fexe ba xoolal daal di fexe ba xam na ne kii téye na loxo bëre. Hmm. benn loxo bi rek lay xool loxo bi rek lay day si sigg rek maanaam da ngay jël position bi bi nga xam ne mën nga mën a bëree. bu fekkee droite bi nga mën a indi nga ni tànk bi éliminer benn loxo bi bu fekkee gauche bi nga fekk moom nga ko bëri nga éliminer benn loxo bi daw si git fii de tey mënoon naa daw jiital tànk bi loxoom bi gauche bi mu def sigi bal ko maanaam roof ko naax. Mhm, mhm. daal di sigi nag téye ko comme ni ma la defoon sànq. Mhm. roof ko naax nag daf sigi ñu téyante nag. bëre loolu moo doon yoon waaye gis nga ko daf ko sëpp rek waa ji daw witti ko demal. xëcc daal di jaar ci flanc bi gis nga ko fii de dóor bi du yoon. ñu dem ñu dem gis nga voilà voilà gis nga fii. léegi moom réer na complètement parce que waa ji na ko foo xam ne fii. dégg moom réer na ci biir bëri bi. Hmm. day làmbatu xeex rek daaw rek. d'accord ba tey rek Sa Thiès fii euh, moo euh, kii euh, Boy Niang hmm. moo ko gën a ànd ak saboom fii ci biir bëri bi. Boy Niang moo gën li ci combat waaw moo a moo gën a ànd ak parce que hmm. Boy Niang li mu ci am fi mu xam na ne fi mu ne tey xelam na ci bëri bi. boo xoolee ñoom ñaar xelam dal na ci bëri bi parce que xëy na mën na am làmb na dooleem yaakaaroon ne wàññee ko doole ñaari yoon. mën naa am loolu nag lu ma xalaat la rek. mën naa am ëpp na ko doole ñaari yoon gis na ne loolu amul gis na ne tam waa ji waroon na defe na ne woon dina ko indil beneen bagaar bu dul boo xam ne bi bokk rek bii andiwul ko. Hmm. dégg nga loolu lépp maanaam daal lu nëbbu woon ci bëri bi lu bari. feeñ na feeñ na moom dëgg la. waaw feeñ na comme feeñ na ci moom nag léegi nag confiance lay bëri. Hmm. waaw. ay fi fi mu ne nii Sa Thiès moom li mu waroon def. Hmm. ne tekkaat tey rek ba tàqali ko moom daal tey bu doon si jamono ni nag mu ñu tàqali ko nii da ngay signalé. ñëw ci sa coach. bu fekkee yaa ngi ci yoon mooy la baax na bu fekkee new ci yoon mooy la déet jaaroo yoon kii du lii bëriwul ak moom lii daanu ko nangam ak nangam nga teg ko ci yoon mm, mm. ba mu ñëw daanaka presque loolu amatul ci làmb ay ci ñu dem waaw waaw gis nga wala xeex xam nga xeex waaw gël la mm. fii nag xeex dóoral ma dóor rek la père xoolal fi booy ñaan ni mu ko jàppee daf ko jàpp parce que xam nga booy ñaan tam que côté bi mu ko jàppee taf ko noonu euh, kii mënu cee rëcc parce que côté boobu mënu ko bëree côté bi nga mën a bëri lañ lay dugg rek mën a wàcc xoolal xoolal laaw ba dem mooy maanaam xool fi muy doon hmm. wala bu ko xoolee booy ñaata esquivé na combat am hmm. est-ce na ba ko bi dalu ko dégg bu sigee da koy jàpp hmm. parce que la boo laayee ba dem boo sigee waa ji ba tata foofu sa ndigg surtout mu jàppee la foo xam ne fi yow mu ne woo faa bëri doo dem ay ca ñu dem jàpp baa ngi voilà gis nga voilà bi mu tata foofu foofu nag ñëwal jàpp bi li mu ko jàppee pour ñu dem teer ñëwal jàpp waaw voilà gis nga fii. Hmm. mënoon naa rëcc. kan moo mënoon rëcc. Sa Thiès mënoon naa rëcc. nu muy def ba rëcc. Oh, très bien gis nga loxo bële góosam bii nga fii. fi mu ko hmm. teg baaxul. Hmm. ca mbaxam mbagg mi pokkataan bi. po euh, ci pokkataan bi la koy crochet. daal di ràcc tànkam bii éliminer loxo bii. waaw. mais est que moment bi xeex bi mu buggoon li mu bëggoon amu ko que dina xalaat jéem a rëcc ci combat bi. mais jéem a rëcc boo fekkee ne accident la foo xam ne yow fi da ngay daanu. Hmm. yow xam nga ne accident action boo xam ne daanu rek a fi des mais a dafa ci bëre. Hmm. rëcc dafa bokk ci bëre dafa am foo xam ne boo fa tolloo fii mu ne tey rëcc rek moo la waroon def fi mu ne tey situation bi nii kii àgg na ko foo xam ne fii mu ne tey jii mun fi def dara dara dara lu mu jéem a rëcc rek mooy yoon. Hmm. te ñuy seetaan te mën a bëre yëpp xam nañu li may wax xam nañ ne tey jii fii tey bu ñu amoon tapis boo xamee ne bii tey dañoo toog nga yor bëri ñu toog may la mu ëgg si ma war la fii dinaa la woon ni ñuy rëccee. Mm-hmm. nii muy dafa ne loxo bële day crochet ba ba mu dëgër daal di éliminer loxo bi ràcc tànk bii daal di rasu. Mm-hmm. rasu rek nag moo tax des fois ma dégg ñu naan diw du bëree day rasu rek day rasu rasu ci xam nga bëri kenn ko bëri ñaar rek mm-hmm. ñaan ak rasu. comme la déggee de waaw bu dama ne riñaan ak rasu rek ko yor ñu ne mën mën naa bëri te mënul ñaar yi. bëri des na mooy riñaan ak rasu. fii nag rasu rek ko ci doon génne. ayca mais rasu nag day fekk nga téye ba dëgër. Hmm. resu day fekk nga téye ba dëgër fi nga téye dëgër nga mën a jéem a rëcc mais li ngay téye bu dëgër doo rëcc. ñu dem mu ngi noonu. waaw day tëdd gis nga ko day tëdd hmm. de nii la fi mujj mujjee ko jaal gis nga voilà voilà xam nga droite bi xool fi mu jógee. Hmm. xool xool xool droite ak gauche bi fi mu jógee droite bi fi mu ko jëlee. droite boo xam ne yaa ngi ko jëlee Touba jëm Dakar foo koy fekk. doo fekk kenn de. coup bii dal nit ki day fekk nga nëbb ko ko. Mhm. mais koo xam ne da nga ko ne fàng ba mu gis ko kay. nga mhm. xàcc coup bi kay nii rek ngay def rotation rek ngay def. Mhm. mu romb la nga tibb ko. moo tax bëri na ci erreur bu rëy rëy ma di wax ne Sa Thiès. doomi mbër la. magam mbër la. moom mbër la mbër la ci jëmm ay ca ñu dellu si kon ci ci ca plateau bi nga ni Sa Thiès. la. ci bind. mbër la ci baayam mbër la magam mbër la. mais loolu doyul. xam nga lu doy. Hmm. ni do ni mag gi mbappate toj mbappat yi toj mbappat yi toj arène bi. Hmm. noonu la waroon def door dugg ci arène bi. moom Sa Thiès hmm. bu duggee ci arène bi mënoon na def sax lu mag gi deful. parce que day coof ci papaam coof ci magam ak li mu moomal boppam. dégg nga fi may waxee de. naa bu baax. day coof ci da am loo xam ne yàlla la koy may sa maneenu bopp la. ak li ngay jëlee ci sa mag. ak li ngay jëlee ci sa li ngay jëlee ci sa waajur. ak li ngay jëlee ci mbedd mi. dégg nga li ma la hmm. loolu na loolu la ñu amee xam-xam xam-xam ni ñu ko amee mooy dangay fexe jël ci kii jël ci jiili jël ci baabu jël ci ku ne nga cof ci dara bu dajee rek nga bari xam-xam hmm. waaye nii su ko naree continuer nii mën na téye làmbam mais père li ñu jaaxal rek taxul ne man mbër la hmm. wala sama mag mbër la rek nga ne doon la mbër gis naa ko fi ñu bari ñoo xam ne dañ seen man dafa doon mbër rek ñu daal départ rek ne ñoom dañuy doon mbër demuñu gis naa ko man naa ko lim ñu bari fii ne tey jii ak sunu génération ak benn génération seen grand frère génn rek doon champion mm-hmm. ñu ne ñoom dañuy doon champion déedéet ak mbër yàlla koy def ci nit mm-hmm. ak mbër xam-xam yàlla koy def ci nit bul tëb dem rek sama maay mbër la woon wala sama sama mag mbër la woon rek damay doon champion déedéet mm-hmm. déedéet du demee noonu per li ma jaaxal mooy hmm. Sa Thiès combat bu muy bëre hmm. euh, day def erreur mais ci erreur boobu ci lay daanee boo xoolee diggante ak Zarko. waaw def na ci erreur bu rëy ba Zarko wër ko ndomba. très bien mu génn ci. boo xoolee diggante ak Boy Niang def na ko boo xoolee ay combat am arène. Hmm. ci bëree bëree bëri yoo xamante ne même premier combat am arène. daan na malgré mais boo xoolee combat boobu su ma jumloon Garga Mbossé moo bëree grand combat bi diggante moom euh, ak Falaye Balde. Euh, mu bëre ci moom it mu def erreur bu rëy daan ci moom saa Thiès mm-hmm. combat bi bari dañ naan day juum rek di daan mm-hmm. day juum rek di daan est que mm-hmm. jotul kon tey mu rectifier erreur yooyu muy def ci combat bi très bien ça kontaan naa ci laaj bi combat boobu ngay wax maa ngi toog moo ngi nekk rel la woon moo ngi nekk réel dafa doole daw ñëw ci kawam loolu def dafa dal ci kaw nekk réel rek réel tël ko mu dem mais mu tël ko rek mu daal dem xam nga mu daal di fekk waaye mais fekk na booba nekkulal hmm. dafa téewoon ci triceps si yokk paa bi tuuti hmm. ci biir bi lay toog keroog maa toog ci plateau bi hmm. maag bekaay bi mu ñëwee dama ko ne daan nga booy mais ci erreur nga boo demee xoolaatal li ngay jàngal wax naa ko ñëpp dégg muy benn ñaareel ba ñu dajewaat fii mu bëriwaat ak euh, kii euh, kii nu mu tëddi Zarko Zarko Zarko ko roon daan mu rëcc daan bi ma fekkee ci plateau bi xamul lu ma wax per juumati naa de ma ne ko waaw mais dee rek ci fi nag xam nga juum li koy defar mooy nga juum fii xam ne lii moo heure laa defoon fii mais bi yoon du ma ko def mm-hmm. loolu mooy tax nga am xam-xam mais bu fekkee ni nga juumee tey moom nga juume suba juume gannaaw suba nature lay doon ci dootul deñ mm-hmm. moo tax damay wax boo amee doom moom jikko ji la neexul teel ko yar mm-hmm. teel ko dindi ci moom balaa màgg su màggee rek su ko màggee rek moom lay deyaale c'est dangereux moo daal Sa Thiès bi na góorgóorlu defaraat carrière am defaraat bëreem bëri mm-hmm. bi des na ba pare encore parce que fi ñu koy àggee muy daan ne waxoon naa ko ne ko soo ko rectifier ne la ñu musiba moom mu ma ne ma mm-hmm. ma ne ko juum nga waaye juum nga daan waaye nag boo demee rectifier wul mm-hmm. rectifier wul parce que mooy tax li ma wax toujours nit ki da ngay ànd ak ku la ku la di la mën a jàngal mais ki la xam-xam mënu laa jàngal déedéet ñu ñëw ci Boy Niang père waaw euh, Boy Niang combat yu bari li muy bëgg mooy adversaire am dox ci kawam. waaw euh, attaqué ko. mu mën a jàpp li mu bëgg a liggéey mu liggéey ko. Hmm. day mel ni dalaa ragal te ragalu la. Hmm. boo xoolee diggante mag Baye Mandione loolu la fa hmm. wane. boo xoolee diggante mag Dolph loolu la fa wane. boo xoolee diggante mag Garga Mbossé noonu la mel. ba ci combat bii moog Sa Thiès loolu la wane ak Lac de Guiers da lay mel ni ku la ragal bëgg la bàyyi combat bi pour ba dox ci kawam. pour mun ko affronter combat bi jeex moom noonu lay bëree tout le temps. xam nga loolu. noonu nga ko gisee man naa am noonu la demee mën naa am demewul noonu tamit mm. mën naa dem ne stratégie la quoi mm. stratégie la mooy maanaam moom lay moom loolu mm. loolu feemam la boo xam ne ci lay daanee gëdd la pied droit nga def pied droit nga yoxo si ko mu yoxoo solo taba takkala dóor si suuf loolu stratégie bëree la bëreem la léegi nag day dajee koo xam ne kii nag kooku nag da koy jàng nag day jàng ne kii lii lay bëri waaye man tam du ma ko fekk ci lii mm-hmm. indi ko sa affaire bopp mm-hmm. parce que loolu ñam na ko mu neex mu di ci daan ñam na ko neex mu di ci daan dégg nga da koy continuer Hmm. waaw du question dafa ci ragal wala di déedéet ak gisuma lool. Hmm. gisuma ne dafa ragal mais piège la bu muy teg te soo ko tegee réussir ci benn ñaar ñett ñeent da koy continuer. Hmm. loolu rek la. jërëjëf loolu loolu rek la mais attention booy la boo xam ne bii tamit. Euh, daañu ñaar day liir combat day liir yi am na mënin daal. liir yëpp loolu yëpp dëgg la. waaye li gën a am solo mooy mbër la moo xam ne bii fooyee na bëri ndawam ba pare encore tamit bëreem dafa ci am mëninam. am na mën dem boo xam ne moo yundu boobu nga seet laal ci suuf nga defee la mu yow takk ca kaw hmm. kooku fooram la te nit ak fooram ne naa la boo ko mënta xañ bu ne mënuma cee daan hmm. da ngay fexe ba du la ko def hmm. wala su la ko defee boog nga jàng ba lu la ciy génne waaye doon ji li daan ci nàngam te loolu mooy fooram moo ko tax a doon mbër loolu soo ko defee rek def nga erreur bu rëy rëy rëy da naan lii def na ma ko lii lay daane waaye man dinaa fexe ba duñ fa àgg du fa àgg ak moom parce que waaye bu boo juumee nag ba àgg fa moom nag xam nga lu may desee jéem lu ma ca rëccee jéem noo ca rëccee ah waaw loolu mooy yoon hmm. moo tax Sa Thiès mu ko àgg fii nii tey foofu rek jéem a rëcc rek a doon yoon mais boobu ni mu ko rëcc boobu yombul hmm. dañ la koy jàngal ne la kii pied droit teg boo boo yoon day yóndu ci kaw takk ci kaw bu la takkee nag nii ngay def crochet fii éliminer mooy yoon mooy yoon loolu éliminer boobu nag dafa ànd ànd ak tànk bu muy booy ràcc pour nga mën a taxaw hmm. waaye boo siggee boo ñëw rek nga dem noonu la demee mm-hmm. mbokk yi seetaan wasaare làmb gis ngeen. Mm-hmm. li nga xamante ni indil nañ leen ko ci dox ñaari combat wu xale. Mm-hmm. nga xam ne ay jàmbaar lañ ku mel ni Sa Thiès ak Boy Niang. Sa Thiès day rectifier erreur rek dellu si waat ci course bi. Euh, Boy Niang seeti na leneen Sa Thiès day ñëwaat ci course bi. Euh, parce que mu ñu ngi dégg ay combat am digganteem ak Garga Mbossé daanaka. Euh, mun nañ ni taxaw na ci benn côté taxawul ci benn côté. Mhm. waaye xam naa ne li ci des yàggatul. Mhm. Euh, léegi Sa Thiès dina dellusiwaat ñu xool fu muy mujjee combat boobu. Mhm. père ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci ci ci ci ci ànd bu rafet bi nga xamante ne ànd nañ ko. waaw jërëjëf di kontaan tey tamit wax dëgg yàlla ci waxtaan ak yow waxtaan wi neex na. ci sama côté de ma neex na parce que yaa may laaj. Eh, maa ngi tontu. Hmm. Eh, ñiy seetaan tamit bëgg naa ñuy apprécier. Hmm. ba kenn ku ci nekk ku am combat boo xam ne bëgg nga ñu tegal la ko. Hmm. ah nga woote ci wasaare fii ne combat nangam laa bëgg ñu de. analyser ma ko. Eh, boobaa yaakaar naa tamit. comme Mbodj mi noonu la ma ko waxee Mbodj ne ma bu fekkoon ne da ngeen di jël da ngeen di ubbi seen antenne bi jël kii nga wax sa waa sa kii mu wax. maanaam sa technicien bi. léeg ñu dugal benn combat. maanaam euh, euh, ñiy seetaan la comme mm. euh, Wassare mm. ñoom it ñu mën wax ne man de combat diw laa bëgg ngeen analyser ma ko mm. combat diw ak loolu loolu tam doon na neex waale quoi ñu ne liggéey bi lu ko gën a doxal rek mooy suñuy tànk quoi incha allah xam naa ne su ma defee naa ba Bachir ne ko ñu waxtaan ci loolu bu fekkee jubu na ko ñu dema ma di ko nuyu Mbodj ak copain yooyu ñi ma yónnee ay message yu bari di félicité la yónnee na ma ko sax dañoo baax waaw yónnee na ma ko ñu ngi félicité affaire bi loolu ci la ma jox sax thème waaw ma ne ko su ma demee foofu dinaa ko yëgle di nuyu yëpp di ñëw Birame Ndaw Ndoye France moo nekk mm. suñu waay la mm. fa la nekk waa waa soppey Sud FM sama gars yooyu yëpp mm, ak euh, kii nu mu tuddati waa euh, dañoo am benn groupe bu tudd euh, les sages association des sages de la lutte sénégalaise. association des sages Moustapha Gueye mooy. trésorier mooy président bi. man maay trésorier bi. Mhm. ñoom Pape Konaté mooy suñu mbër yooyu ne France. ak Italie euh, mhm. ñoom Boy ñoom Malal Ndiaye ñoom ñëpp ci mhm. la ñu bokk. waaw waaw ñoom Serigne Kane ñoo ñëpp. ñu di nuyu di leen ziar. ñu gën a connecté nag ci kii bi tamit def récupération yi rek xam naa nit moom du mat. xam-xam moom du ñëpp ko am. waaye du xëy na maa xam lépp. ni ma xamee rek laa waxee daal. Hmm. ku gis leneen loo ñu mën a yokk tamit nga yokk ñu ko rek. Hmm. lii li man daal noonu laa gisee daal. jërëjëf Père may sant ñëpp di ah. ñëpp nag hmm. waaw. jërëjëf Pierre ah, kàddu bi rafet na loolu am na solo mbokk yi comme li ma leen waxoon rek képp ku bëgg combat buñ la ah, waxtaanal indi ko fii analyser la combat boobu da ngay commentaire rek wax combat yi nga bëgg incha allah rabbi dinañ la ko indil fii Pierre décortiquer ko ñu waxtaanee ko ba képp koo xamante ni da ngay seetaan Wassare Lamb nga jëlee ci njariñ ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo di leen jaajëfal ba ëllëg incha allah mm. ci beneen xew-xewu làmb ci jàngat làmb bàyyi jiile ak Père Birahim mm. jërëjëf Père jërëjëf kontaan jëfati jërëjëfati mm. ndaanaan laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci bii boor mën ca bee boor mën ci boor ak ci yëley boor bàyyi fàtt njaay nu ñoom tuuna rëy ma juum waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor